dañ ko lii pour mu wax réew mu mi na yem ca loola di wax tamit ni Sénégal amul kenn koo xam ne tey ëppale nga lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé bateau yi lu nañu wax ko tey soo jëlee Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bis bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon ba tey ku déglu live Pape Alé bi keroog bi may wax junju naa ne laaj leen makki Sall ndax xam na aji Sarr seede bi tey ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir na ko en tout cas génn na ci génn ñu Adji Sarr recevoir na ko te benn autorité APR moo ko fa yóbbu ci lim leen wax moom mi ne moom amul taaw comploté moo wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawe loolu fës na tey fi may daanelee nag mbokk yi mooy di gën a soññ yéen ñëpp ma leen gën a soññ xeex bi ñun dem mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye Macky Sall dina ci ñàkk nguuram ci nii wala ci nële dugg na ci loo xam ne amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafet